ANACIM bi waaw alhamdulilah abordé wul na puisque thèmes yi ñuy jox fii abordé woon nañ ko en classe te tamit travail woon nañ ci davantage moo tax bu ñu ñëwee tamit xam nga waaw ñu ñu sonn ci quoi waaw door nañ lu mu waree di ñaan yàlla tamit lépp baax. déedéet affaire yi affecté wu si dara puisque li ñuy jox lépp abordé nañ ko en classe kon amuñu si benn problème quoi ñun léegi ñooy ñëw motali a loolu moom a se voit lépp kii na abordé wul na. ñaan yàlla rek mu baaxal lépp. Antibay c'est abordable parce que li def lépp vraiment ce n'est pas du tout difficile daal lépp def nañ ko en classe. Pour moi, épreuve bi mu ñëwee moom ah rassuré moom vraiment parce que sujet yi moom il est facile à traiter pour un élève terminal qui était concentré mais nag ñu ngi ñaan tamit euh, correction bi ñu teg ko ci yoon bañ a bañ a bañ a jël maire bi daal suppi ko élèves maire état bi suppi ko élèves nga def. sujet philo ah abordable na de boo kiiyee tuuti mën nga see génn ah. parce que daf nànk-nànk rek sinon di nga dugg si piège yi ndax def au yooyu xam a baax. d'une partie de moom am na côté yoo xam ne ñëw na fi mais yoon yi moom sa expérience bopp moo la fay génne quoi moo la si xam nga génne sinon may lool ndax totalement lépp liñ jàng liñ ñu génne totalement lépp jànguñu ko ndax euh, état bi biñ koy jàng. Euh, dernier cours ki jour yi la presque biñ koy jang dañ koy taxañ moy lool temps bi amuñu temps bi ñu wara am pour jang li ñu wara jang pour man ko ñew exprimer normalement ah professeur yi professeur yaakaana pour état beké ñom amuñu suñu yo nekk seen digënté ak état bi li leen war mom lañ wara def dañ leen fay pour ñu corriger normalement non kon dañuy corriger normal ni mu wara rek ni waré li ma ci mëna wax dal moy ci ñepp constater ko moy d'abord pandémie bi am ni on a vécu avec la pandémie c'est-à-dire nous essayons de faire la pandémie Nous avons koy ah, les mesures barrières qui s'imposent Masquer, ak da tellement place ak lave comment, même personne en surveillance am ci ak personnel donc mesure barrières vraiment le gaz, Ya, ñu ngi ñaan yàlla nag yàlla moom man yàlla gën noo aar ba bu bag bi dikkaatee le deux ñu mu dem bu mu demu ci en tout cas on reprend les gestes barrières pour que examen bi jàll dans de bonnes conditions. waaw xam nga lu ciy tax daal mooy maanaam comment dire les mesures sanitaires parce que daa amutoon xam nga daawaat jug amutoon leen amutoon mais ren moom gis nga ko ak pandémie bi bon lu ci nekk fii karang-karang masque yeeg yooyu yëpp macha allah loolu daal moo ci lu nouveau mais ñun daal jël nañ suñu matukaay ba nga xam dara manqué woon macha allah amul fi benn problème daal. waaw xam nga euh, philosophie moom dafa bas maanaam dama la boo xam ne nii yaatu na te na xëy na maa ngi dégg naan am na sax lu ñu ci wàññi mais am na lu ñu naan am ko ñu naan wàññi nañ mais dans tous les daal xam naa yaakaar naa daal pour Fallou Gueye sax élèves yi jàng nañ jàng koo daal dinañ ci am nañ ba nga xam daal sujet bu leen jox dinañ ko mën a traité d'autant plus que man gis fekk naa professeur muy def sujet boo xam donc ñu ngi ñaan yàlla xëy dal mu jàll ci dans de bonnes conditions que bac bi yàlla jàll élève bi am ci ndam. waaw anticiper philosophie yi nuñ ko doxalee ni ñu daan doxalee épreuve philosophie ci baccalauréat nga xamante ni dañuy jël mesure yépp pour que examen bi di am ci condition yi nga xamante ni ñoo gën a baax waaye ren jii nag dafa am loo xamante ni moo ci dolleeku li ci dolleeku mooy. philosophie bi dafa dajeek mbas mi mbasum Covid Covid 19 moo tax danoo jël ay yeneen matuwaay yoo xamante ni dolli ko ci matuwaay yéen daan jël matuwaay yoo xamante dina dinañu dina tax vraiment ñu maytu maytu mbas mi ñu maytu ñu maytu tawat ji matuwaay yooyu mi ngi nekk ci raxas suñuy loxo bu ñuy dugg ci centre bi am na benn dispositif boo xamante ni tamit. dispositif lave main boo dañi ne raxasu ak ndox ak sabu ba set gel hydroalcoolique tamit amna por port masque nak tak masque nak mom mom ñepp dañ koy def fi ci centre bi mo xam ngay superviseur mo xam ngay surveillant mo mo xam ngay élève bo xamanteni ni candidat nga nga ñëw ci def ci baccalauréat amul amul xej ak sen ñepp ñoo ñoo ci mancé ci respect mesure barrière yoy xalé yi bu nu génné tamit def sen épreuve ba amul dajalo ci cours bi ku nekk day delu dank fa nga fa nga joge won lol dal moy mesure yi nga xamanteni jël nañ ko euh, rappeler nañ surveillant yi tamit ni xalé yi li ñu def ci salle bi yépp nañu respecter durant les 4 heures ci ñent waxtu yi ñu fexé ba respecter mesure barrière masque bi ku génn am aajo bo génnee ñëwaat bala nga duggaat ci salle bi nga jaarat fa nga jaarat jaaraat raxasuwaat defaraat masque bu baax so duggaat tok tok ci salle bi lol dal moy mesure yi nga xamanteni jël nañ ko xalaat ni yalla dina ñu mussel ci ci ci tawat ji ci mbas mi. centre bi mi ngi nek centre bo xamanteni abrité na ñaari ñaar benn jury mo fi nek way ñaari série mo fi mo mo mo mo fi mo fi tew ben bi moy série L2 benen bi série lettre lettre arab way bo dajale ñep ñi ngi tollu ci juroom ben fuk ak juroom fuk ak juroom ñaara waaye li teew ñëw def composition composé tey ci def si examen bi ñu ngi toll ci juróom benn fukk ak ñeent fukk ak benn 341 ñoo ñëw kon ci ñi nga xamante ne waroon nañoo ñëw def si examen bi te ñëwuñu ñooñu seen lim toll nañ ci fukk ak juróom benn juróom yi ñi ngi bokk ci série L2 fukk ak benn yi ñu ngi nekk ci série lettre arabe waa si euh, euh, sujet bi it li li ñu si xalaat mooy mu abard mu yomb ak mu ñàkk yomb loolu xale yi ñoo koy ñoo koy mën a wax ndax yomb na si ñoom wala yombul ci ñoom waaye li ñu xam daal mooy sujet la yoo xamante ni euh, ci programme philosophie bu terminal bu terminal la bokk ñun ko formuler it ku ko lire nga comprendre xam ni lii lii la bëgg a wax waaw sujet la yoo xamante ni ci programme philosophie bu bu bu terminal la bokk. njort ni ci conditions yi nga xamante ne xale yi jànge nañ ko surtout ci weer yi nga xamante ni mu mujj ak dispositif bi nga xamante ni jël nañ ko nga xamante ne xale yi bu nay war naroon a bari ci classe bi ñu néew ñoo fay nekk euh, di mën a jàkkaarloog seen i professeur di échanger ak ñoom ñoo ñu di xam seen i aajo mën koo régler kenn ku ci nekk ci li ñuy wax pédagogie différenciée. mu am set approche de proximité jàpp nañ ni wax dëgg yàlla ay résultats yu baax mën na am ci euh, épreuve de philosophie bi